daal jël aw xeer teg ci tibaat bi yonent ne bismillah def ci daal di dandu tuuti julli ñaari raka soo xoolee nag ni ni ni photo yi demee dalay dalay jox image booba jëmbi sëriñ bi boo xoolee ñi ànd ak moom ne ci gannaawam kenn solu ci dal dàll boo yeesoo tubaab bi kenn solu ci dàll te loolu mooy li xewoon ci yoonu murit yoonu murit moo daa kilifa goo xam ne bu bu bu kilifa mooy kenn du soli dàll sëriñ bi rek ko soli dàll euh, kenn it euh, euh, tegul dara ci boppam maanaam kenn solu ci mbaax na ak loolu ay tegtal la ca nim solo it nga xam ne daawul sol mbuum mu àgg ca wàq wa ca dojor ya da nga ko ci seetlu mooy photo bi siiw na mbuum ma toll de noonu la toll mooy daawul sol mbuum moo xam ne day gudd bàgg ca wàq ya xaar kanam bi boo xoolee moom rek la lay jox kon ci sama gis-gisu bopp man ci sama bopp gëm naa ko gëm naa ne sëriñ bi la waaye gem ko tegtal damaa saxal ne moom la wala ma wedd du moom waaye sama sama sama xalaatu bopp laa man gëm naa gëm naa ne moom la ndax jox na ma image bi nga xam si ma leen jóob naa ne moom la ndax jox na ma image bi nga si ma leen jóob moom la nett li ci roon na dim boo xoolee di la ko jox bu baax a baax Ah, kon saxalu mu weddi moom waaye nag gëm naa ko man ci sama bopp loolu rek laa ci doon leeral yàlla suñu boom rek a xam ah, waaye di daal def ay gëstu defaat ay gëstu baje fa mu jógee jomul bu defee gëstu te ko rek yàlla mën naa def ah, am lu ci feeñ ba leeral wéeral ci am lu mu doon wasalaamaaleykum นะครับ